gëmuma théâtre buy def euh, ay saaga ay wane ay fóonante fii ay ngeen baal ma ci termi ay li xew rek léegi mhm. man gëwuma loolu te ku koy def ànduma ak yow mhm. man dama koy wax même maison yi koy def maison yi def yooyu ay saaga ak yooyu toujours ma wax ko man je bokk naa ci comédien yuy xeex loolu yu koy ñaawlu mooy Sénégal dañu dañu am dañu dañ fi juddoo yaroo fi théâtre bi ñëw bëgg a yàq li fi mag ñu baax bàyyiwuma ci xel parfois dama koy waxee xol waxuma pour yàqal kenn iñaanewuma kenn ŋàññuma kenn damay wax maison de production yiy def lool sax ku ci am produit bi man layti bul ma jël bu ma woo ma joué mais li ngeen di def rafetul théâtre war na rafet am jàngale am yeete nit ñi seetaan ko reetaan jàng ci loolu mooy Sénégal mais yin ñuy wan du loolu amul solo amul jëriñul Sénégal dara buñ jël beneen culture beneen dëkk indil ñu ko te loolu mooy commencé am ci tele yi donc rôle état mi ngi ci ñun am na fu suñu kàddu am na fu mu yem am na fu mu yem da nga war a seetaan théâtre jàng ci danga war a ree mais nga aspect éducatif bi nga jàng ci mu jàngal la parce que ñun loolu lañ xamoon ñun da nga daan toog ci tele jamonoy tay wala daaray ko joué nga nga nga nga nga nga jooy nga gis sa mag di jooy sa tante di jooy say seen waa kër triste parce que dañ leen a yeew ci benn affaire bu am solo parfois nga gis ñu ree ñëpp bugg théâtre senegal bugg nañ théâtre loo génn ñu consommé ko di la laaj leneen kon ñun ñuy jouer ak ñi ñuy àndal ñu ñuy produire nañ produire lu baax loolu moom ragaluma ci kii que soit parce que rafetul ñuy jàngal suñu xale yi billaahi wallaahi azim billaahi billaahi barki weeru koor bu tedd bii non barki démb dama toog sama néeg sama ñaari doom nekk ci salon bi billaahi di seetaan benn théâtre wallaahi azim du ma wax du ma wax pour waxuma pour kenn sama tëraayu bàmmeel laay wax benn moo saaga ñoom xamuñu ko xam naa ne xamuñu ko mais bi biñ ko déggee ci tale bi dañ ko doon répété wallaahi azim dem naa ba amatuma lu may wax ko waaw affaire bi metti ma ça m'a fait mal après dama génn ne leen est-ce que xam ngeen li ngeen di wax ñu ne déedéet ñoom te ñu ngi koy répété ma ne bébé nday xam ngeen li ngeen di wax mu ne déedéet ma ne Pape Mor xam nga li ngay wax mu ne déedéet ma ne ko lii saaga la te benn baat bu gàtt la ngeen baal ma ci terme pour ñu comprendre jàngalee ma tax di jóg répété wu ma ko pour saaga mais ngëj ngëj saaga la dañ ko oyofal mais saaga la ngëj samay doom di ko foye mu biir kër loolu metti ma mu leer ne ma ne télé bi day fekk comédiens yi dañuy fekk nit ñi seen biir salon di leen heurter j'ai pas peur de qui que soit ragaluma benn nit li may wax lu am la ñoo bokku théâtre bi iñaane wuñ kenn soxore wuñ kenn waxuñu kenn bul joué na ñëpp joué parce que mooy suñu métier mais na rafet dañuy ñaan na terme yi rafet